asalaamaaleykum yéen waa Sénégal asalaamaaleykum yéen waa Thiès man la Maleye Seck euh, président mouvement alliance des pâtissiers maa ngi leen di ñëpp di leen ziara di leen baalu àq di leen baalu àq di yónnee sama nuyoo ak sama ziara depuis Angleterre euh, bi may yónnee fi may yónnee vidéo bi. Euh, dafa am ay point yu bari yoo xam ni bind nañ ko ci programme mouvement alliance des bâtisseurs mu mat fukki point ak juróom yoo xam ni lépp dafa soxlaal Thiès ci wàllu infrastructure ci wàllu sport ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu assainissement ci wàllu électrification ci wàllu euh, branchement sociaux en eau aussi ci wàllu marché yi ci wàllu ci wàllu ci wàllu euh, nan ko def joo gis nag nan ko waxtaanee nag moo ko jiitu moo tax euh, quinze points yooyu yëpp nekk ci programme bi dañu fas yéene chaque fois di ci waxtaan ak euh, waa alliance bi di ci waxtaan ak waa Thiès di ci interroger aussi tamit autorité thiessoise yi nga xam ne ñoo ñu jiite ndax mu sommes nos administrés l'occasion fait le comme ni ko tubaab yi waxee euh, tey nag mu fekk ñu euh, ci stade bu mag ñuy wax stade Stamford Bridge maag sama doom Issa ñu ñëw di hello euh, ñu ñëw seetaan si match Chelsea Lille Champions League parce que moom day football ci club bu Chelsea bi nga xam ni académie la bu nekk ci fi ñu dëkk mu bëggoon a yàgg seetaan si match Champions League moo tax may ni ko tey Euh, bi ma ko indee nag wax dëgg yàlla sama xel nekk ci jamono yi nga xam ne dañ daan dem stade Lat jamono yi xam ne dañ daan dem euh, Maniang Soumaré jamono yi xam ne dañ daan dem champ de course euh, stade bii nag ñu ko créé en 1905 1905 la ko gars yi tabax Chelsea di fi footballé mu nekk stade boo xam ne day jël 41 637 places mu nekk stade bu rëy. Euh, Chelsea nag nekk fii ci biir Londres euh, comme ni fi Arsenal nekkee comme ni fi West am nekkee comme ni fi euh, Tottenham nekkee comme ni fi Fulham nekkee comme ni fi Crystal Palace nekkee ak yeneen équipe yu ndaw mu nekk équipe boo xam ni dañuy wax ni tout le temps di nekk ci top foo bi top boo ko déggee moo ñi nga xam ñooy jël tout le temps les quatre premières places de la première ligue anglaise muy en général Liverpool Manchester United Chelsea si Arsenal mu nekk équipe boo xam ni équipe bu am koom-koom la euh, seen valeur koom-koom ñu ko natt ci un milliard huit cent cinquante millions de dollars loolu nag boo ko doon xool tey mu nekk euh, ci franc CFA un peu plus de mille deux cent onze milliards sept cent cinquante millions de franc CFA équipe bi loolu mooy valeur financière am mu nekk le septième club le plus riche au monde euh, te loolu rek. en un temps boo xam ni euh, matul cent ans euh, ci la ko dëkk bi ak Chelsea réalisé euh, naanu kazalika yeneen club yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Londres muy Tottenham Arsenal noonu nañ amee xaalis aussi quoi muy loo xam ni dama ko jël comme comparaison jël ko comme excuse pour parler de la situation sportive à Thiès parce que Thiès tey ba ma nekkee xale ba léegi ak génération bi ma jiitu jiituwaat ma defe naa boobu ba léegi stade yi fa amoon stade Lat Dior di stade du champ de course di stade Meng Soumaré yooyu ba léegi ñoo fa nekk te condition yi ma leen bàyyee woon ba léegi defe naa condition yi ci la nekk ma samp laaj boo xam ni maa ngi koy laaj waa Thiès di ko laaj autorité yi nga xam ni dama bëggoon rek ñu leeral ñu ci politique sportive bi nga xam ni moom la ville bi am ndax euh, champ de course ba léegi suuf si ñu si bàyyoon moo fa nekk euh, cinquante ans après presque bu may nekk xale ba léegi maa ngi waaj a àgg ci loolu. Euh, Mañe Soumaré nax ni ko zalika Lat Dior bi nga xam ni mooy stade bi nga xam ne moo fa quasi potable douze mille place la defoon nañu ay travaux pour yokk ko. yóbbu ko ci capacité bu gën a mag mais defe naa ni ci maquette bi rek ci nañ yem euh, euh, c'est peinture rek nañ def mais les douze places sont restées euh, intactes kenn yokk ci benn place de de Seneps bi nga xam ni moo ne woon tiitaru Thiès Seneps bi nga xam ni bi ñu nekkee xale foofu lañ daan seetaani équipe nationale foofu lañ daan entraîner ñu fiyeeroon ci lool Seneps boobu tey def naa seen benn tribune sax. bañ ko daanelee naan dañ koy defaraat ba léegi def naa defaraatuñ ko mu nekk aussi beneen beneen jàngat boo xam ni euh, beneen point boo xam ni point deltu ginnaaw la ci situation sportive euh, bu région de Thiès et situation footballu Thiès. Euh, Thiès léegi li ñu daan tiitaroo muy raay li daan tiitaroo muy éthique yooyu équipe yooyu yëpp léegi c' est voué aux oubliettes raay def naa léegi division nationale la nekk. Seneps bi nga xam ni sax premier division la nekk. bi ñu tëjee stade Lat Dior doon ko defaraat euh, sanes boobu ak équipe bu Thiès yi nga xam ñoo nekk deuxième division ñoo ñëpp dañ doon dem ba Mbuur di fa footballé foofu na doon footballé le temps que ñu tëjoon euh, stade Lat Dior mu leeral ni depuis plus d'une décennie depuis plus de vingt ans amul benn plus value boo xam ne sur le plan infrastructure autorités euh, yi yokku nañ ko ci ci Thiès ci ci ci ci autorités yi yokk nañ ko ci ci Thiès du ci ci football bi du ci basket bi du ci athlétisme bi du ci cyclisme bi du ci euh, handball bi du ci euh, euh, natation donc dama wax football nii rek mais yoo xoolee ci des yëpp avec les arts martiaux c'est les parents pauvres du sport a Thiès ah ma bëggoon laaj Thiès waaye nag parce que boo xoolee ni xam ni tax sax mooy gën a rassembler jeunes yi muy mouvement nawetaan je pense il y a quatre-vingt-dix clubs de de de de yoo xam ne ci ñaari stade rek nañu football parce que léegi stade Lat Dior kenn du fa football euh, nawetaan donc 90 clubs yooyu divisé je pense en zone di recevoir année bu jot 100 000 francs de subvention de la part des communes d'arrondissement 90 clubs yooyu ils yooyu bousculent elles se euh, ils se bousculent entre entre deux stades muy stade champ de course ak stade Maniang Soumaré ñu def foofu jàngat aussi tamit parce que lu tax population bi di yokk. volonté pour démettre de l'avant, pour aller de l'avant avec leurs moyens du bord, avec leurs moyens personnels, mais les autorités en reste accompagnons-nous, accompagnons Bobo Elan. Donc, moi, je la directe population ci soi ici, ndax gis nañ seen bopp ci politique sportive bi nga xam ni moom la autorité euh, euh, locales yi euh, municipales yi di définir dama déglu je pense que la le vote du budget de la municipalité Euh, il n'y a pas plus de deux, deux semaines je pense vers le 22 euh, novembre euh, donc ma ma ma déglu ko ci média bi déglu ko ci presse thiessoise bi ñu wax ni on a voté un budget de un milliard neuf cent millions mais rubrique yi ñu ci def yépp budget nag bu ko waxee dinañ ci dellu si yeneen i yeneen i waxtaan parce que bii waxtaan bu njëkk la rek mais budget bu ñu ko waxee mooy xaalis bi nga xam ni dafa jóge ci recettes yi. Euh, xaalis bi nga xam dafa jóge ci lempo yi xaalis bi nga xam dafa jóge ci dotation yi xaalis bi nga xam dafa jóge ci fonds de concours xaalis bi nga xam dafa jóge ci emprunt obligatoire yoo xam ni maire bi mën na koo def ak njaayum suuf ak lempo yi ak juuti yooyu yëpp nañu dajale mu nekk gafaga goo xam ni moom la maire bi jël di ci régler jafe-jafe askan bi mais bi ma ci budget boobu ñu voté ko rubrique yi ñu ci wax yëpp man dégloo ci benn ñu wax ci rubrique sport li ma ci gën a frappé daal mooy wax nañ cinq cent millions et plus de masse salariale maanaam mairie ville am na plus de cinq cent millions yoo xam ni ci xaalis de franc fa moom la ñuy fay ña fay liggéeyee ñu def foofu taxaw jàngat aussi ña fay liggéeyee ndax amal nañ boobu njariñ autorité yi ah, ah, tooñu ma kenn aussi population bi tooñu ma kenn mais damay xool répartition budget bi ni ñu ko defaree ñu def ci trois cent millions yoo xam ni trois cent millions de franc CFA la pour ah, rubrique divers rubrique diffère boobu boo ko déggee mooy euh, essence su mairie bi mooy euh, euh, déplacement maire bi mooy ses voyages ainsi de suite ainsi de suite ba pare ñu ñëwaat ci li nga xam ne ci leen wax en terme d' investissement ñu ni cinq cent mille francs CFA li may wax ni yëpp nag maa ko déggee ci média bi après le vote du budget de la de la de la de la mairie de Thiès Ville donc ma gis ni rek voté nañ budget bi ba pare ak seen yeneen xaas yi xam ne jóge ci état bi wala privé bi mais wax waxuñ ci benn yoon lan lañu war a def sport bi ma bëgg a wax rek ni est-ce que ça suffit sa suffit à la famille sportive de Thiès ça suffit aux footballeurs ça suffit aux tenants des écoles de football ça suffit aux basketteurs entre parenthèses basket bi sax dafa dee dafa dee trop trop trop CAT bi xam ne fa la dañu nit ñi daan basket sax mu nekk balaabe eh, ci li ma for sax dégg naa benn homme de bonne volonté un ancien international ñu koy Kabirou Pen moo koy réflexionné di ko jéem a defaraat mu mel ni maire yi ak autorité municipale yi dañuy taxaw rek bàyyi lee bonnes volontés ak les populations yi demee ak les moyens du bord ñoom ñu jël li xam ne mooy budget bi di ko def yeneen fin yoo xam ni population bi gis ñu seen bopp du ci santé bi du ci sport bi du ci éducation bi du ci assainissement bi mais tey nag football moo ma moo moo ñu tax a jug euh, sport moo ñu tax a jug dama bëgg lii am Chelsea lii am Arsenal lii am West am lii am euh, Tottenham mais c'est possible à Thiès c'est possible au Sénégal parce que fii ay doomu aadama ñoo fa nekk fële ay doomu aadama ñoo fa nekk fii ay doomu aadama yàlla jox xel ak xalaat ak xarañ ñoo fi nekk dëkk fi Sénégal tam nax na ko zalika donc li may woote rek ñoo dama bëgg population thiessoise yi ñu wax ñu problème yi ñi xam ni mooy le sport Thiessois di jànkonteel wax ñu attentes yi nga xam ni maire bi fu mën a nekk tey ëllëg attentes yooyu nañu teg su la table ni ko maire monsieur le maire lii nañ bëgg nga saafara ci ah ñun de am nañ ay pexe ñun am nañ ay stratégie ñun am nañ ay connaissances yoo xam ne bu ñu yàlla indee ci li ñu wut incha allahu rabbi am nañ jox ni bu ñu melul nii Chelsea wala mel ni Arsenal wala mel ni sur le plan sportif Londres wala Angleterre. dinañ am ay pexe yoo xam ni incha allahu rabi dinañ tegu ci yoon bi parce que ku tegu ci yoon bi incha allahu di nga mus a àgg donc maa ngi wàcc fii sama kàddu dama ne woon rek l'occasion fait le larron comme ni koy waxee dañ nekk ci un temple du sport moo xam ne lu exemple la euh, parce que yàlla daf ni lu baax dañ koy wone lu baax boo ko defee dina ci fay fukk lu bon boo ko defee mu teel ko muy nekk benn donc lu baax danga koy wone fësal ko ba mu nekk exemple ñi nga xam ne bu mu jugoon sax di def lu baax deen ko yokk ñi nga xam ne bu ñu jugoon di def lu bon dinañ ko for bàyyi donc loolu rek moo tax tey ma nekk fii ci stade bu ñuy wax Stamford Bridge lancé sama vidéo wax ak waa Thiès wax ak askan wi wax leen ni on est on peut rêver on peut on a le droit de rêver et incha allahu rabbi ku rêvé wul doo dund réalité donc foofu laa yemale sama kaddu di nuyu ñëpp xam naa waa Sénégal moom tey euh, Liverpool na ni seetaan mais maa ngi fii ci Chelsea ak euh, Lille et puis je vous souhaite tous et à, à je vous souhaite à tous et à toutes euh, une bonne soirée euh, au match de Champions League. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.